dikkati naa tàmm laago la moo tax turbine yéene kaay xëy sampub laaj laago gi nga xam ne mooy njuuj njaaj tàmm am ci élection ci réewum Sénégal ndax waajaluñ ko ci mim réew yéene kaay bi dee média bi naan maan Sénat bi ci boppam moo xàll yoon wi bi yoon ak président bi nga xam ne dafa daal di fippu ne daar daar Ousmane son moom nañ bindaat turam ci liste électorale bi te DGE ne ko jébbal fiche de parrainage ba président Macky sal ni ko yoot ne ko yaa jox DGE carton rouge jox naa la carton rouge bi moom bokkatoo yow ak ña nga àndal ci biir terrain bi génn leen fa yàllaaxu ma sampaat beneen équipe te xam nga nag président Macky Sall yéeni kaay bi ne ma 2019 gannaaw bi mu gañee élection yi moo ne woon njuuj njaaj moom ci wàlluk élection dégg rek te 2021 bii Abbas Fall bu Pastef nee na ko yaa ngi ciy yoo xam ne day élection yi bu amee jaarul ci yoon te waxuk Abbas Fall bi dafa mel ni bal ren jii ndax rek ay mbir yu tey xel yoo xam ni am na ci élection yi te lépp nag daal di tukkee ci sampaatu ci liste électorale bi tribune yéene kaay naan maan mane la la béy daan dundee ba sax sikkim booba njuuj njaaj gi nga xam ne nguur gi samp na ci ba tey jii mu mën a naxee mbaay opposition bi loolee du ci daal di génn ngir mën a gën a toog ci boppu réewum Sénégal xam nga bu ñu ne la Sénat ci boppam tëgginum élection bindu ci liste électorale yi ba keroog résultat di wàcc moo ca war a taxaw moo moomee ma ni la nga xëy suba daal di déjjate ña fa nekkoon ci sag coobare faxas bale code électoral li mu daal di wax te yaa ngi tàmbali woon nag ca révision ba ndax dañ ne la woon ab révision ordinaire la nga def ko ab révision exceptionnelle xale yi nga xam ne mosuñoo wote am problème ngir bindu ci liste électorale yi général Lamine Cissé ci téeréem xamle woon na ni élection yoo xam ne tëggin wi jaarul yoon wala tey man mën naa dugal réew ci guuta man naa faxas démocratie man naa yëngal benn bëñ bu weex ba nekkoon ci gémmiñ te mu taxoon réew mu amub stabilité kon na ngalawaay président Macky Sall sab diggee 2019 def ko 24 heures yéene kaay naan man en tout cas ONG 3D ak Lex Africa day ña ngay naqarlu bu baax a baax ni ñu doxalee ak waa Sénat ci élection yi Vox Populi naan man ayib dafe la dem ñu bilan bi newu fi l'info yéene kaay naan kon en tout cas nguurug Sénégal ca janoom ak avocat Ousmane Sonko yee ca cour CEDEAO dañu leen faa gàntal ba marde taali Walf Quotidien naan leen en tout cas nguurug Sénégal fi mu ne daal ci tàng ba suwe ak Ousmane Sonko ña ngay doxal naa yi seen temps ngir xañ ko mu bokk ci élection le Témoin yéene kaay naan kon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar moom CEDEAO dina atte mbirug Ousmane Sonko waaye fii ci senegal it ëttu bu kawe bi dina atte mbirug Ousmane Sonko yor yor naan kon laata loolu faa la fleur bi génn na kaso naan kon ñaar ñoo xam ne ay gradé lañu nekk ci administration pénitentiaire bi division des investigations criminelles nee na leen ni seeni téléphone yéen kaay bi naan maan moo leen sànq ci la nga xam ne mooy dossier médical bu Ousmane Sonko bi nga xam ne fuite na libération yéen kaay naan kon ñaar ciy jàpp moo am ci digg administration pénitentiaire bi inspecteur bu administration pénitentiaire bi niki noonu directeur des affaires juridiques ak planification statistique ñoom ñaar ñëpp nag la ñu daal di jàpp réew mi naan man président Macky Sall dara du faxas dara du Amadou Ba ndax Sall daal ngémbul na ko ba maar day taali laas yéene kaay naan maan ak ñeneen nit di Amadou Racine Dia daal dinay jébbal fukki junni ak benn yu toftal ñeenti téeméer ak ñeent fukk ay parrain jébbal ko nag Cheikh Omar Anne sabab gi nag du lenn lu dul jàppale Amadou Ba le point yéene kaay naan maan Moustapha fan fanweer ak juróom-ñaari junni ci parrain la jébbal Amadou Ba njiital course bu Bambey daal di taxaw ci ñaareelu vague bi nga xam ne fekk si woon na bu njëkk ba Sud Quotidien naan maan booba crise ba tàmbali waat na ci njàng meeg njàngale gaay naan ko diggante CUSEMS SAEMS ak SAES e fi mu toll nii ngémbul nan état bu réewum Sénégal 24 heures yéene kaay naan koon kuy waajurug ndongo day mën ngaa tiit ndax njàngale mi bi ci suuf ba nga xam ne moo nekk ci kaw fi mu ne nag daal dinañuy soobu ci fitna yoo xam ne maar day taali las yéene kaay naan man ñoom syndicaliste yi kay fi mu ne dañoo ngémb bu dëgër di xaar Cheikh Omar Anne l'enquête ko di ñee na ma jàngalekat yi daal dinañu yuuxu gannaaw bi nga xam ne Cheikh Omar Anne xupp na yi ne ko dégguñu de fi mu ne ci gréew goo xam ne maar day taali lañ nar a sooboog moom waxambaane kan mooy sowe daara yu kawe yi juróomi weer a ngi nii mu nekk ci sukuraat turbine yéene kaay naan man waxtu woowu day njàng maa ngay ñoŋ moom ci diwaanu Bambey xale ya nekk ca diggante collège yaak lycée ya te am fa xam-xam Babacar Ndiaye njiital conseil départemental ba sargal na leen refet lu yi taxawaayu parents d'élèves yi nga xam ne nekk nañ ci gox googee vox populi naan man mbapat gi day tàmbali na ci luuma yi ci kaw ga ñoom béykat yi nag tàmbalee sax-saaxee seeni gerte ndax na nguur gi ci boppam moo tëlee daal di taxawal daar daar njëgu gerte gi turbine jox jox kàddu Habib Thiam Habib daal di xamle ni fii ci Sénégal politique agricole bu baax moo amul ci réew mi béykat yi moom dañuy tuñ tuñi rek di daw di dem ak dikk waaye daal politique boo xam ne tax na seen gerte yi daal di ñoŋ amul ci réewum Sénégal direct news naan maan Jeux olympiques de la jeunesse 2026 yi Sénégal ak France am nañ ceg déggoo ci waajal nag événement bi nga xam ne daanaka ci wàllu sport moo gën a rëy ci dénduk Afrique déggoo ga nag mi ngi am ci wàllu financement fukki million ak juróom euro soo ko koo ci Sénégal daanaka fukki milliards la nag ñeent fukk ak juróomi million d'euros yi nga xam ne Sénégal jotoon na ca Sénégal ak France seen diggante tax lool te ñu gën koo wane ci waajtaay Jeux olympiques yi moom président Macky Sall di xamal ndaw yi ne ci wàllu programme économique ak social am yéen a ngi ca xol ba doon leen ay bañkat te xam ni Sénégal gii luñ fi tëgg yéen a tax yéen kaay bi naan man accord yooyee Doudou Ka mi nga xam ni moom lañ dénk économie plan ak coopération moo ko daal di matal ko lu toll ci ñeenti junni juróom benn téeméer juróom fukk ak juróom benn ci athlète ñu war leen dalal ci réew mi xaaj ba nekk ay soxna xel nag war a dal ci ne financement googee daal dinay mat ba nuppi turbine ne kaay naan ko dee waxtu wow Sénégal moom mi ngi jëx-jëxi foo làmb day metti port autonome bu ndakaaru dubaay Port World moo fa nekk di def la ko saf daanaka nguurug Sénégal mel ni ku nekk ci seetaan ña nga xam ne nag ñooy liggéey ci poor ne naqarlu gu metti lañ ci am démba si mi nga xam ne nag mooy seen jiit xam le ni poor bi dafa fees ba daanaka woto sax xajatu fi te conteneur yi nga xam ne widd nañu nanguwuñu ko ñu daal di koy génnee ci port bi fi mu liggéey bi yépp nguurug Sénégal yeyul yàbbi ci tribune yéene kaay naan maan ka yey yàbbi moom moo di Adama Ndiaye fooraa mi nga xam ne taxaloon nañ ko ci ay nag yoo xam ne dañ leen doññati woon moom Adama ne nag yooyee laale wu ca taqe wu ca kenn jàpp ko te kenn convoqué wu ko it tribune yéene kaay naan maan daanelal ca diwaanu Kolda lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci million yoo xam ne faux la waaye tam matériel bañ koy daal di defaree daal dañ koy teg loxo foofe dal di nag déjjati ab réseau boo xam ne ay mbébétam day bu antu woon ci réewum Sénégal daanaka faux billet moo fi daal di doxantu